maa ngi nuyu ki xam ni jataay bi kulóoru nu mooy sëtu Cheikh Omar Fouti yu nekk ci waaye couleur googu mu couleuroon am na nag beneen couleur gu xam ni moo raw couleur yépp mooy sutu rasulullahi bi nekk sama gannaaw di Chérif ay Aïdara kon yaakaar nañu kaamil yi xam ni def nañu ko fi ak fi daaw yi xam ni def nañu ko fi yooyu yëpp nu ngi ko wéeroon ci sa barke maam sallallahu taala alayhi wa di la nuyu bu baax ak di la ziar ndax sunu baay alxaaji Abdul moo daan wax ni jataay bu ngeen fekke ci sutura rasulullahi nekk fa bala ngeen di jox kenn cër jox leen ko ko di la nuyu bu baax ak sama doom sama xarit sama soppe boobu nga àndal di Cheikh Seck waaye nu sant yàlla bu baax Ousmane Tanor yal na yàlla yërëm yal na ko yàlla xara àjjana yal na rëcc lépp lu mu fi doon def waaye fa mu tëdd wallahi xolam sedd na lool ci jigéenam bii xaritam bii soppeem bii ki mu wóolu ci lépp ci dundam ba dem bàyyi ko ak parti bi moom yokku na wàññi woo lépp lu la war ba Ousmane demee barzak ba léegi uuf nga njaboot gi lépp lu Ousmane daan def ak ki xam ni mon chef de l'État yaa ngi koy def rek pour parti socialiste jëm ca kanam xam naa yàgg nañu ko wax ni góor baax na jigéen baax na waaye mbéy xaal yi ngi ñaanal yàlla may la gudd fan yàlla may la wér fi nga bëgg yóbbu parti bi yaag sa càmmiñ loolu sa xarit boobu sa soppe boobu di sama rakk sa ci man rëkk ca duma rëkk maam budaama aminte fi nga bëgg yóbbu parti bi yàlla na yàlla may kàttan ak doole bëgg yóbbu fa parti bi ci dara yi Cheikh sunu ànd ak ki xam ne it ñëwoon na fii nu investir ko comme président de la république sa digganteeg moom yan na ko yàlla gën a dëgëral pour l'intérêt du parti socialiste ndax nun daal nu kenn amuñu kenn ku dul le parti socialiste kon nag Mbengue di la ñaanal ak di ñaanal Mame ma Sall moomu ak Aliou ki Aliou Ndoye nag sama dooma maag baayam bokk nañu bureau ku ñu wax Amadou Babacar Sarr Chopard baayam tudd na jabaram doom nun ñëpp mu coiffé nu gireen ma suma tàggoog moom yaa ko yàlla may wér may ko kattan ba mu dellu siwaat ci booloo mi di nuyu bu baax nag kii xam ni du gëj sama kër maa ngi la koy seedeel le di du Grand Dakar Jean Baptiste wallahi Mbengue xaali du am ñaari weer ca ñëwul sama kër ca du fa ñëwee rek loxo neen bëgg ma fonk ma jox ma sama cër waaye it jar na ko Grand Dakar xelu kenn nekku ca de xelu kenn moo ca de xelu parti socialiste rek la ca yaa fa taxawal le parti socialiste di ñaan sunu doom ju baax ji ma dendal nu koy wax Aliou Ndoye yan nun dunu nun ñëpp ba liñ séenu nu yegg ca ba nu dajawaat fii ci maison du parti socialiste di ko ndokkeel mu nekkaat maire ci dara Cheikh Ahmed yi di nawe bu baax sama jigéen bi toog di aji mari père yal na yàlla guddal sa fan nu yàgg lool ak moom lépp lu xam ne lu baax la aji mari père mu nga ca julia am nga nay de joor jóob ku muy sa nay am nga nay waaye fi nga wéeru ni bi sama yaay dee dem barzak aw ma kenn ku dul amit meeg ah sa yaay kontaan na ca nun ñëpp kontaan nañu ci waaye nag di seedeel Aminata Mbengue Ndiaye lu xam ne xam na ko gor si ni ma nga ca barsàq tey di alxaaji Mass Mbeng moo woo ma dem wuyu ko mu ne ma dama bëgg yóbbu ma ci Ousmane Tanor amatul signature mosuma ko laaj marché waaye ngorom tax na ma bëgg xaritoo ak moom maa ko yóbbu it Ousmane keroog kër Arab Diouf la moomee kóllëre googa mu koy doxal di ko doxal mësul dëj di ko doxal ak di ko doxal ak le parti socialiste yaa na ko yàlla yërëm yaa na ko yàlla xara àjjana njabootam gii mu fi bàyyi ki ko représenté sama xarit sama secrétaire wax na ko Samba Kabara ak doomam Libaas ak Maodo yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér li may ñaan daal di dékk sama loxo ku xam ni moom rek moo jara dékk loxoom mooy yàlla sunu boobu tabaraka wa taala yal nga am yal nga kàttanal sunu jigéen bii sunu xarit bii sunu soppe bii Aminata Mbengue Ndiaye ba fa Ousmane bëggoon parti bi yegg fa mu yegg fa nu daal du nu toxu du nu fay du nu dem feneen lu nu am le parti socialiste rek kon nag Mbengue noo ngi lay gërëm ndax lépp lu Ousmane bàyyi woon teg nga sa loxo yaatal nga ko njëbbatu Ousmane jooyul parti bi jooyul di gërëm bu baax nag sama doom Cheikh Seck waaye olof noo ko wax nee nu xaleel bu loxoom satee mu mën a bokk ak mag ña Samba Camara yal na yàlla guddal sa fan lépp lu nu bëggoon di ko doxal ci parti bi ca mën a turu ko ndax suñuy at yaa ngi koy doxal ca ku ne daa ko jox cëram moom ma sëkk yal yàlla guddal sa fan. Aminata nag dila la wax nii juillet mai la ko ndeyam waxoon ni ko Mansour Mbaye mooy sama càmmiñ mooy sama xarit ma ngi koy toppatoo sama digganteeg moom. Chérif Mamine Aydara maa ngi lay ziar di la ñaanal yàlla may la gudd fan yàlla may la wér ku ñëpp ni baax na baax na ca bi ko ñëpp laata wax it kër ndeyam ko wax ak kër baayam mooy kan kii nekk sama gannaaw képp ku mbokkal bi ay baayam gërëm nunu ko kër ndeyam gërëm nunu ko ay xaritam gërëm nunu ko ki dem barzak du soin talor gërëm na ko ala Cheikh Seck yal na yàlla yokk sa wërsëg dama dem fii ci jumaa ji ànd ak Seydou Aziz Al Amin mu ne ma nan daje dama la soxla du ñu def ca jumaa ja nu yegg ba ci jumaa ja julli ba pare imaam ba ni tàppi yii ak haut-parleur yii de ki ko fi indi woon xamuñu ko waaye ne nun Cheikh Seck la tudd lu gën rëy loolu ci def ci yàlla ya na la yàlla gën a may doole may la kàttan fii daal Samba Kabara di la ñaanal ak fu ma toll nit boo ko yoxee cëram rek wàcc nga man bu naa ma li la Ousmane bàyyee loon ni la jàppal ci amita yaa ngi koy jàpp amita du def dara ca woowu la di diisoog yow guddi ak bëccëg ndax loolu la Ousmane daan def ak yow kon nag Sall yaa ne yàlla guddal sa fan yàlla fi yàlla bàyyi Ousmane Tanor nag kenn mënu ko fay surtout man mii nag dem ba wóolootoo sa bopp ni bu sa fan yaa su ma yàlla jëlee jox leen Mansour Mbaye kàddu ga lépp lu ma sa am wallahi bokk na koog man as gor dem na ku baax dem na waaye nag dana dajeeg mbaax yal na koy yàlla may xare àjjana yàlla jéggal ko ay bàkkaaram yépp ci dara Cheikh Ahmed Tidiane jërëjëf Kabara